بايولان تي في منار العلوم ومنبع الفهوم إلى جميع أنحاء العالم xam ne doxoon na suma digganteeg ndaamal baay loolu waa Abdou Barhama généralu baay boobu kooku nga xam ne dafa jeex tàkk ci baay yëgut lu dul baay bëggut lu dul baay dundut lu dul baay ay guddeem ak ay bëccëgam yëpp daf koo jox Cheikh Ibrahim taxoon ma fasanteeg moom kóllëre kóllëre googu duñ ko fecc ba ilal abat loxo bi roof nañ ko fa duñ ko rocceeti ba ilaa yawmi diin li tax nag loolu ñu def ko mooy Mawlana Cheikh Ibrahim sëñ Abdou Wilane nee na su ma kóllëre ak moom duut moo ko créé duut maa ko créé waaye jekk faas daj dëpp gi borom dënn bu yaatu bi ah fajkati aajo yi fàkkati bakkaar yi moo ko def mu Cheikh Ibrahim moo tax nag ñu jàpp ko ci biir dox gi ñuy dox di dem bàyyi di ñu won di ñu xamal kan mooy Abdou Barhama billahi laa ilaha illa barke yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku raw abdu barahama ci baay yàlla bindul ko wax naa ko ko fii ci biir nekk Omar Thiam ma ne ko mane ne ko abdu barahama mu ne ma ne ko yaa ngi éemu ci naar gànnaar yi yaa ngi éemu ci awsa yi waaye billaahi seenuñ sa pënd faydu bi xam nga defuma ci benn fan man Malla Thiam mooy suma sëriñ Baye Malla Thiam ki tuddee a Barhama Baye ñeen fukkil gaaji faydu bi dafa takk am juróom benn weer maam maa la ñëw oy si Baye man may caatam man la mujj a xamal yàlla ci kaw suuf 89 ak léegi ay fan la dama gàddu suma saak di wër pay bi Baye Insa Wilane xam na ci dara moo tax démb bi mu jëlee rek ma fekk ko ca taabal ba jox ko suma 1000 francs bi ndax daf ma jas bu xaal daf place yu bëri yuñ doon daje muy yëngal ci Baye ma ne la dama doon wër di dem fu ne Haji Abdoulaye Khalifa Baye gërëm na ma Cheikh Ahmedou dóor la suma digg gannaaw gi ne soldaar yi Baye laa gërëm na ma Ahmada Tidiane yi mag mu yoru ki fi jóge barke de moo Ndiaye def ma gërëm Cheikh Mouhamadou Nazir Mouhamadul Haadi lim leen ñoom ñëpp em si caatu baay mooma mujj a laxasal kaala fii ci njukkal baay Abdou Barhama ngi toog kon muqaddam yi fi nekk di yëngul baay ëpp doole gi yëpp lekk naa ceeb ca seen kër ya naan fa njar toog di la déglu di peese sa mbir ci bàyyi waaye dama ne billahi wallahi taalaay fi ma wër yëpp diggante Sénégal ak Gambie kuy fonctionner ci bàyyi ni Abdou Barhama non man gisuma ko gisuma ko gisuma ko gisuma ko gisuma ko yaa yàlla boo ñàkkati ay million ci barke Cheikh Abdou Barhama ku ko bugg laa barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn waaye def ma wax ne ma yow sàqam baay mi ngay jël di jox li sañ Abdou te moom da koy yóbbu Medina bu ko yóbboo turam rek lañ ciy tudd te yow yaa ngi ciy def li nga ciy def duggal ko ci sa poos dem ba Medina xam nga doomi bàyyi nga jox leen ko ñu ñaanal la ñu bare ma ko wax ma ne leen maandu leen man bu ma yëkkatee suma sàqam baay teg ko ci tenqal Abdou Barhama man مباشرة إلى شيخ إبراهيم دو أم جاب موي جام جو خامني دا ماكو كونترولي ري مان نياكوما بوب مباينا ما بما ني جار دي خولي ليف نك فنانوت في واي امنا توتي ييغ ييغ اك ديغ ديغ اك غيس غيس بارك شيخ إبراهيم ماكو توب ديكو خول بو ييغ ييغال ماني موم دو كين الله با الله با عبد برهام تاخاو دا فا ويت دا ويت مانام الله بيم نيك شيخ إبراهيم بالله والله تعالى كوفا ويت لا su ma buggee topp wax ji dinañ fi guddee waaye daal li ma bëgg a wax mooy ëwal baay Cheikh Abdou Barhama fegete na dëgg yi pax mu nekkoon ci yoon wi sakk na ko ëkk yi buddi na leen la route est béante ah, dama ci am waaw doxal rek dem da ngay egg fi nga jëm dara du la baare waaw Cheikh Abdou Barahama rek la na situation yi waaw côte yi nekkoon ci yoon yëpp décodé na ko dëppoo na lëpp lu doon jalaal ci mbiri ndukumaan gis nga saqam baay bi dama ñëw fii kër Omar Thiam Baye fii ci kaw fekk ko foofu ci mat la bi <laughs> waa jooju gàtt te njool lool barke Cheikh Tidiane gàttul de Abdou Barahama bu détail yooyu sax duma ca dugg waaye sii laa ko fekk jox ko cent mille francs sàqam mu jóg toog ne ma waaw góor Seydi Baye Diouf ma ne mu ne ma baa lay ñaanal ñu dem ba nga xam ne sàqam baay bi su ma ko jël see nga def ci million ma ne ko déedéet bul wax million waxal ay million mu ne ma waaw góor ay million mu yokku waaye heure bu ma ko daan lijjanti surtout bu daaw bi bu daaw ni ma ci sonnee ma mosuma koo sonnee ci sàqam baay la ma ca daj waaye gis nga bu ren bi suma kër la atoog rek mu yomb ndax lan la ëwël lawal bi lañ xelli te saf na naanaa saf na pasti lawal bi lewetut de parce que Seexu Tijaan lawal <laughs> bi lewetut ma yëkkati daaw cinq vingt-cinq mille yu teg 1000 francs mu ne ma waaw 1000 francs bi boole ko ci fa cee bokk ma ne ko nag bu ne danaa ko yokk mu ne ma insha ma toog fi ma toog mu yomb lool ma wax gaa ñi ne leen ren 550 laa bugg def parce que suma xaatir moo ma sànni foofu amut sikki ne xalifa yi Abdou la kii xalifa dëgg la du xalwu fay barke Cheikh Ibrahima baatin la zahir la xalifa yi Abdou Barham matee na ñaari côté yëpp recto verso paaka ñaari boor la kii dafa garaaw de dafay dagge ci côté yëpp sañ-sañ ak kattan gi nekkoon ci Abdou Barahama roof na ko ko mais nag moom dafa sedd rek gis nga courant bi dafa tajjili ci lamp bi mu ngi jëriñ waaye kenn déggut bruit moom noonu lay demee de tekki geeg mekki gi mu ngi dox ay kilomètres barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma lay wax ni lu wér la ma ne leen 550 laa bëggu ren. la ma ca jublu nag mooy man zéro ya intéressé wuñ ma ñaari cinq yi lay boole muy dix ma folli zéro ba muy un moo tax muy ëwal ma ne leen foofu laa bëgg a tàmbaleeg moom ëwalu yoon may jëflanteeg ëwal ma jëmmal fa un ba rek loolu mooy wane ne ab doo ngi nii toog rek keroog jataay bi mu ñëwoon fii doon laltaayal gàmmu gi bi mu ñëwee am na ku wax ne lañ daan yëg lañ yëg dama ree dama xaqataay xaqataay fi ma toog amut sikk jëflante leen ak Abdou Barhama mu ngi nii jogu fi Abdou Barhama billaahi jogu fi moo tax ma ne ma wax gaañi am nañu foogoon sax ne sàqam mi dama ciy deltu ginnaaw ma ne leen suma ci deltoo ginnaaw kon man naa feq la kon man fenkat la kon man gawma dara te ki façon kóllëre gi du fi jóg ba ilal abat muy Cheikh Ibrahim su ma ànd wilaan bàyyi la du leneen bàyyi la te bàyyi moomu du fi jóg kon bu fi wilaan jógee ma arrière naa te man duma naafeq man may géwéli bàyyi dégg nga ko moo tax ma roof ko loxo bi te duma ko rocc bu ilal ëbët di wax ñun ñëpp nañ leen gën a takkaayuwaat instant yi affaire yi neex na Abdou Barahama dem na naaf nañ gerte gi peese nañ ko ci seko bi feyee koo des lu tax ñuy toxu ku toxu ku ñàkk bopp nga salaamaaleykum wa rahmatullah